na la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 وسيلتي إليك في نيل سلام وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي résidence Khadimou Rassoul tur wi siiw lool ñu miin ko it ci yeneeni tur muy kër Serigne Touba gi ci jumaa ji wala kër mag moom ràññeeku lool ci dëkk bu sell bi di Touba ci kaas bi nga xam ni moo nekkee ci digg kër gi di bërëb bu ñu liggéey ci espace bu yaatu ñu xayma ko ci lu toll ci 15000 mètres carrés am ay bâtiment doon ay dalluwaay ci ay gan nekkit bërëb boo xam ni xalifi général des Mourides dina fiy faral di nekk ñu fiy dundal ak waajal événement yu bëree bëri ci yoonu Mouride résidence Xaadimu Rasuul kan moo ko taxawal ñan ñoo liggéey bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir kër gi ak naka lañu koy jariñoo ak saytu gi dal leen ak jàmm ci résidence Xaadimu Rasuul أنيس البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أوزارا فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي برزقه هدى ومالا وكل من صدمني أو لاما kër Serigne gi ñu naan résidence Khadimou Rassoul kër Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke moom Serigne Touba la woon. nag nit ñi nga xamee ne doomi sëriñtubaa Touba dañoo amoon kër ci li wër jumaa ji. noonu la ko cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikhul Khadim amee woon muy kër gi bi nga xamee ne nag sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifab sëriñ tubaa toog na fi te gisit ne eh, sëriñ Touba mënta ñàkk kër wala ay kër ci dëkk bi wala ci dëkk yi wala ci réew yi. ci la cheikh Abdul Ahad Mbacke nekkoon troisième xalif général des Mourides sàkkoo ci sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Bassirou. ñu gënoon koo miin ci Serigne Moustapha Bassirou ngir mu jox ko kër gi mu mën koo def kër Serigne Touba. mu amee woon ci 1974 jàpp 75. te loolu amee mu wax tàmm woon ci pàkk bii pàkk bi la tàmmoon la tax tàmm ko ci nag moo ko ci xam xam naa ñun lañu ci mën a xam ci saayir xëy na mooy fi pàkk bi taxawee ñaari dëkk boo dem mm, borom dëkk ba mooy féete fenti ma fi féete fi mu féete jumaay Touba ji. xëy na loolu la ko jublu loolu nag moom moo xam baatin ba ci jublu fekk na kër gi it kër sëriñ Bachirum Xaadimu rasuul la mosoon a doon naka jekk moo ko dëkkee woon naka jekk moo ko astafurlah moo ko moomoon euh, waaye yàlla dogal na mosu cee dëkk euh, kon mu nekkoon ci loxo yi njabootu sëñ Bachir loolu taxoon waxtaan ci sëñ Moussa Bachir xamal ko ne kër gi la tàmmu ci loolu. gannaaw ba mu xamee it ne ci lu leer ne. bu ko ko laajee it du am dara lu mu tontu lu jëfe ndigal li ni nga ko bëggee Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir itam daal di jëfe ndigal li jox sëriñ Abdoul Ahad kër gi fekk na na kër gi bi bu sëñ Bachir jógee nee nañ leen mosu ci woon a dëkk moo ko moom la mosu cee nañ ci ne gannaawam dañ koo miraasoon ay doomam yu lenn ci ay doomam yu jigéen ñoom moomoon fii ñoom lañ ko séddale Euh, bi mu euh, biralee donc bëggam ci loolu la ko xamal sëñ Moussa Bassirou sëñ Moussa Bassirou gannaaw bu mu ca juboo ak jigéenam yooyee ñu ànd nangul ko loolee jox ko addiye ngir mu def ko kër Serigne Touba tey jii. mu ne jamono dana ñëw joo xam nit dana fi nekk Serigne Touba te su boobaa du am kër ci penc bi su boobaa muy këram te loolu si yëpp laa doxoon agsi na tey defe naa mun Mountakha mii nga xam ni mooy Xaadimu Rasuul amul kër ci penc bi. waaye am na kër ci biir jimi ndax kër Sëñ Tuubaa gi këram ndax moo fi Sëñ Tuubaa tey. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jot ci kër gi def ko kër sëriñ Touba door liggéey bi taxawal fi ay bâtiment yoo xam ni da koo sant ñenn ci ni yoon wi tàmbalee ko ci Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ni moo ko jox kër gi. ndax dafa woo Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ne moom la laaj kër gi ba mu jox ko ko ci turu njabootu Serigne Bassirou gépp ak njabootu Daarul Minam gépp mu sant ko fi bâtiment boo xam ne euh, bâtiment euh, juróomi néeg la ak ñaa saal bu mag ak saal bu ndaw ak euh, ay couloir yoo xam ne ak foo xam ne daal nit mën sa faa waaje yàlla def na it nag ba mu ko defee kër Serigne Touba Serigne Moustapha Bachir la fi njëkk moo ko fi def lu ci njëkk luñ ci mën a jëriñoo moo ko fi def doonte ñeneen def nañ ci lu bëree bëri waaye la fi jiitu ba ci bâtiment bii ci sama ndeyjoor ni moo ko fi def ak yeneen lañ fi njëkk mën a jëriñoo daal moo fi defoon. soo duggee ci résidence Xaadim Rasul bi jaaree ci buntu bu mag bi bâtiment bi nga xam ne moo féete sa ndeyjoor langue ak kaas bi moom lañ naan bâtiment Serigne Moustapha Bassirou di batiment boo xam ni am na ay salle ak i néeg bëri na ay événement yoo xam ne ci yoonu murit ak i ndaje fii lañ koy amalee. batiment bi mi ngi eh, ni ñu la ko mën a waxee ci ni mu tëddee mu ngi mi ngi tëddee ne maanaam daanaka lu bëree bëree bari ci yoon yi danay amee ci batiment bi loolu mën nañ koo tàmbalee ci maanaam koor gi njàngum koor gi njàngum koor gi Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. di rakk ci Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir bi mu ñëwee ci kër gi dafa tànn batiment bi muy salle bu mag bii ñuy defee waxtaan wi di fi amale njàngum koor gi njàngum koor gi mu fi amale ànd kook isbu tarxiya ñoom fii la ñuy aménagé ñëw nekk fi diiru weeru koor gi salle bii ñuy nekk di wax fi la sëriñ bi di defee lool diiru weeru koor gépp bu rëccee loolu it ndaje yu bari ci yoonu murit danañ koy amale fii lu ko mel ne ay réunion yu mag ak ay ay ndaje yu mag ba ci président sëriñ bi recevoir na ko ci salle bi ay yoonu yoon bu weesoo looy salle bi am na beneen salle boo xëyee mu ngi ci suñu gannaaw xam naa di ngeen ko jël ci image yi muy ñaari salle yooyu salle bu mag bi ak bu ndaw bi nekk ci suñu gannaaw amaat ñeenti néeg ak benn salle bu ndaw salle bu ndaw bi sëriñ Moussa Mbacke Naël fi lay féete ci koor gi moom it mooy bi féete ci suñu côté càmmoñ liggéey bi daal di muy doxee fii ci bâtiment bi mooy ñun dañu fee teg ngir ñu koy setal di ko di ko sellal jamono bu nekk ba waxtu wu nit ñëwee man fee fekk ak cat ak ak cell loola nag ñun sunu tarxiya la sunu sëriñ ñu nañu dem leen ngeen nekk ci bâtiment ba muy seenu tarxiya ñu laxasaayu nag di setal bâtiment bi ci jamono bu nekk ak waxtu wu nekk waaye ñeenti néeg yi bu ci nekk am na salle ci biir sa saal yi saal bu mag bii am na salle de bain saal bu ndaw bi am na salle de bain ci ni ko suñu sëriñ liggéeye woon daf ko waajaloon ci ba fu ci nit nekk mën na bañ a gisanteek keneen ka nekk feneen kenn ku ne néeg ba nga nekk la fa war a nekk lépp nekk na fa saal yi it noonu di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdul Qadir fii lay nekk diirub jiitu na safar sëñ Bas buy tàmbali liggéey bi dana jiitu safar waaye fi lay nekk di fi réservoir yi. di feresal waat ministres yi ak mboolem kilifa yi yi nga xayee ñoom la àndal liggéey bi ci màggal bi ñoom ñëpp ku ci ne fii lay ñëw di waxtaan ak ñoom di discuter ak ñoom ba lépp loo xaye war na koo tënk fii ci bâtiment bi lu ci ëpp fii la koy tënkee. danaa fi amal sax benn CRD bi ñu daan mujj amal ci màggal mu jëm ci wàccaayu màggal gi fii lañ ko daan amale ba ci cérémonie yi am na ci yoo xaye fii lañ koy amale bu dee ci wàllu daluwaay yet màggal gi. Cheikh Mouhamadul Bachir ku ne xam na ne bu xëysee ba bisu màggal gi ci guddi sax dana ñëw waaye nag dañ fiy dalal day joxe bâtiment bi ngir ñu gan ñi am fuñ dal muy koy da koy jébbal waa muqaddimatul xidma ñi nga xëy ñoo yore ak yi ñu jël bâtiment bi di ko jox gan ñi ñu nekk ci néeg yi ba màggal gi jàll noonu daal la nekk fii ci liggéey bi. entretien bâtiment bi dañu koy bàyyi xel bu baax a baax ci jumtukaay bépp boo xam ni war nañ koo yeesal wala soppi. ba bâtiment bi saa su ne muy gën a jamono. batiment bi am na entretien ndax euh, Serigne Mountakha dafay liggéeyloo Serigne Mame Thierno Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu Serigne Bassirou moo ànd ak ñun ci li ñuy wax entretien ci résidence bépp bu dee ci sama côté batiment moo ko yore su ma seetloo benn jafe-jafe duñ ko am ndax daf ñu booleek ñoo xaye ñoo yor seen i liggéey am seen i métier buñ soxlaa tey ci wàllu salle de bain na salle de bain bu am problème. kooku ngay woo directement au lieu ngay woo sëñ Thierno waaye kooku ngay woo mu ñëw changer ñu robinet bi bu dee ci côté climatiseur entretien yor nañ seen numéro nga xëy dañ koy woo mu ñëw defal ñu entretien ci climatiseur yi ba ci mbooleem loo xëy dañ koo soxla ku ci ne luñ soxla rek am na numéro koo xëy yor nañ ko nga xëy moom la ñu woo mu ñëw defal ñu entretien boobu su paree wax ak sëriñ bi loolu moo amuñ ci benn problème. salle bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci bâtiment bi li muy dalal ci gan saa yi mën nay takku moo tax ñu waajal fii climatisation boo xam ni mate na bi ak sonorisation boo xam ne foo mën mënti nekk li ñuy wax moo xam ci biir wala ci biti da nga ko mën a dégg. salle bi am na sonorisation boo xoolee bu sëriñ bi wax moom lañ koy taalal mu di ko utiliser wu. sonorisation bi dafa am ci biir am ci biti soo génnee ci biti am na ay baaful yoo dañ koy def foofu am ci biir am ci salle bu ndaw bi encore foo mën a nekk rek. ci te nga xaye waxtaan yi moo la yitteel da nga mën a foo mën a toog ci kër gi da nga mën a dégg. xam bi day recevoir mbooloo mu bëree bëri moo tax ñu programme ci côté climatiseur armoire yi rek ñu ngi ñu ngi fi def cinq armoire ci kaw gi ñu def ci cinq split muy dix nga xam ne loolu boo ko doon xool ci ay sofo ci ñu jàng ci wàllu climatiseur ëpp na doole ci saal bi moo tax salle bi problème tàngaay moom du ci koor gi du ci màggal gi duñ ci amuñu ko benn jafe-jafe boo xëyee salle bi day tàng jamono bu nekk salle bi boo taalee climatiseur yi day dem ba day seddaay bi day ëpp sax ci mbooloo mi xam ñoo fi nekk dañ koy dañ koy dañ koy wàññi ci biir résidence Xaadim Rasoul ci bët saalum gi bâtiment bu mag bi nga xam ne moom ma fa nekk moom lañ dëppee bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndax moom moo ko fi yoon moom Cheikh Abdoul Ahad ci boppam itam mu sasoo fi bâtiment boo xam ne étage la fukki néeg ak juróom la. bâtiment bii moo gën a rëy ci bâtiment yi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa gi bii nag moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké Xaadim Rasoul yàlla na ko yàlla fayal. ci barkeb sëñ Touba sëñ Abdou Lahad moo ko fi def euh, bâtiment bi bi ko sëñ Abdou Lahad def fukki néeg ak juróom sëñ Abdou Lahad dafa wax ne juróom-ñaari néeg yii de maanaam fasal naa ci murid yi ñu tëjal leen seen juróom-ñaari bunti sawar ubbi leen seen juróom-ñaari bunti àjjana ëllëg moom li sëñ Abdou Lahad fasal murid yëpp keroog bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad mi ngi taxawal bâtiment bii architecte bi defaral ko plan bi jox ko ñu ne ko mbàkki plan bi dafa seer lool moom dañoo waroon a xool beneen boo xam ne mu gën a wayaf sieb laat ni leen bala ngeen woon a xam li ma liggéeyal Sëriñ Tuubaa jaral ñu ne ma ciment bi ak yor koy ak yor a koy siim liggéey bi door a sotti bu boobaa sama bopp laa njëkk joxe kon sieb laat bi mu naal kër gi di naal bâtiment bi lu réer réer la ci woon la ci fàgguloon murid yi te itam Sëriñ Tuubaa nangul na ko ndax waxoon na ni kër Sëriñ Tuubaa gi ma taxawal de bala ngeen a xam njariñam tey mu dem ba benn benn doom suñ Tuubaa di sutut ci kaw suuf. bâtiment yooyu moo fi ak sàq moo xam ne sax soxna may lañ koy wax muy euh, mbaar mi ci weer yi nga xam ne euh, sëriñ euh, sëriñ xabaan moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo yore daara alxuraan yi ak lépp lu jëm ci njàng mi moo fay féete waxtu woo xam ne am na ay ndaje. bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi R plus 1 la. ànd ak fukki néeg ak juróom benn bu ci ne am na salle de bain ak lépp loo xam ne gan war na ko yittewoo. bâtiment bi fukki néeg ak juróom a fi nekk moo nekk ci bâtiment bi ak benn salle bu mag mooy salle vitre bii ngay jàkkaarloon. néeg yi néeg boo ci dugg du jar ngay génn di dem ca ba ca des ndax liñ soxla ci néeg lépp am na fa. am na toilette am na ay lits néeg bu nekk ñaaree la ci dégg nga lépp luy nekk ci am néeg daal mi ci boo boo duggee du soxla ngay génn di dem fenn. mboolem néeg yi nga xam ne ñoo nekkee ci bile bâtiment ay dalluwaay lañ ci mboolem gan yi nga xam ne dañu fiy ñëw rawatina ci jamonoy màggal. màggal gi kër gi bi ko sëñ laa Lahad def loolu la ci façon maanaam mooy gan ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp bu ndikki am fu dal buñ dikkee nag ñoom gan ñi kenn ku ci nekk am na ci chambre boo xam ne booy ñëw invitation bi ngi indaale numéro chambre bi ngay dal da ciy nekk nga xam ne yow soo ñëwee rek automatiquement da ngay daal di jawwale ci chambre lépp fan lay fekk ba màggal giy jeex néeg bu ci nekk itam kéemil alxuraan nga fa tege boo xam ne soo soxlaa jàng alxuraan du jar nga koy laaj kenn bu ci nekk loolaan waaw. Serigne Modou Badara Diop noonu la ko fi Serigne Abdoul Ahad Mbacké santé bâtiment mu liggéey ko fi muy bâtiment bi nga xam ne mi ngi nekkee ci bët saalum kaas bu mag bi moom Cheikh Abdoul Ahad woo itam sëñ Modou Badar Diop sant ko bâtiment boo xam ne moom itam euh, juróom ñeenti néeg la akub saal ñu def fa it jàkka ndax li tax jàkka ji itam moo di Serigne Mourtada du Cheikh Al Khadim da daan dal ci bâtiment boobu te moom ñaare fu mu dal ci jàkka lay jullee ca lay fatoo itam loolu moo waraloon bâtiment boobu muy bâtiment sëñ Modou Badar ñu def fa jàkka waqaliyan miyan min almadaini wa kun mujammiliyan min alfadaili wa zakki lubbi wafdahan rabbi liya fathan mubinan la yura limithliya وليا حذاقة ونورا وبسراد يسر المرورا وهب لي الذكر بسفر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تدل يا مالكي دليلي sëriñ nekkoon xalifa njabootuk sëriñ Massamba Mbacke gi moo it sëriñ Abdoul Ahad moo ko santoon bâtiment bi mu liggéeyoon ko ba mu àgg ci jamono mu nekk bâtiment boo xam ne mi ngi féete soowu kaas bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci digg kër gi. waaye itam sëriñ Mahmadan moom sëriñ Massamba ñu gën koo xam ci sëriñ Mahmadan Jobbe sant ko bâtiment boo xam ne juróom-ñeenti néeg la ak saal. bâtiment sëriñ Mahmadan Jobbe bi jot nañ ko yeesalaat ba yokk ci benn étage. sëriñ ab Ablaye Fall ndax moom lañ joxoon ndigal li. am na itam restaurant boo xam ne euh, benn niveau la woon waaye bi nga xamee ne ñu ngi koy yeesalaat yeesalaat bu mujj muy bâtiment sëñ Mahamadan bi bi nga xamee ne sëñ bi daa santoon waa kër sëriñ Masamba ab liggéey ca kër sëñ Tuubaa gi ci Darul Manaan te ci jamono jooju liggéey boobu noppeegut te waa kër sëñ Masa Mahamadan yi nekkoon ca mu gisit ne eh, war nañoo yeesal fii muy réfectoire bi muy muy eh, restauration bi restaurant bi ci la woo eh, ci la wax sant sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar mu yeesal bâtiment bi nga xam ne moom la fi waa kër Serigne Massamba defoon ci njiitu Serigne Mahamadan ak restaurant bi ñoom nag bi ñu koy yeesal yokk nañ ci beneen niveau mooy dañ ci dolli beneen étage maanaam euh, rez-de-chaussée rek la woon waaye dolli nañ ci beneen étage ca kaw muy euh, euh, ñaari lekkukaay yoo xam ne ñaari jëfandikukaay yoo xam ne gan ñi nga xam ne ñooy ñëw ci kër gi ñu ci ci barab yooyu la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy jëfandikoo. وزيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاد مدمين ومن فعل عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اقتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم bâtiment bi moom la sëriñ Abdoul Ahad Mbacke santoon sëriñ Modou Rokhaya bu Daaru Salaam muy batiment bi nga xam ne fii lay xalif général des Mourides di nekk su ñëwee fii ci résidence Khadimou Rassoul. sëñ Abdou moo ko moo ko moo ko santoon ngir mu liggéey ko ci biir loolu batiment bi di di dox di dem mbooleem ko fi nekk xalif général des Mourides <coughs> daan nga fi ñëw daan fi dajak ak mba taalibe sëñ Tuubaa yi muy daayira yi ci jamonoy Sëriñ Saliou. ba ci sëñ Alaaji Baara ci sëriñ Sidil Muxtaar Mbàkke bi fi nekkoon di ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem. ci jamonoy sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke lañu ko yeesalaat mu santoon ko sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Modou Rokhaya mu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib. maam Cheikh Anta ku ko xam-xam ni ak taalibe moom da ko yor ba mu sëkk teg ci. mu doon am murut saalix ba pare teg ci mu doon nit koo xamante si ni suñu borom da koo may da koo may am xel ba pare mu am ay xalaat nga xam ne bâtiment bi boo xoolee mboolem liñ liggéey ci bâtiment bi yëpp moom moo moo ko xalaatal boppam ndax bâtiment bi boo xoolee <clears throat> boo xoolee jëmmi bâtiment bi rek dañ xam ne bâtiment bi melul woon nii euh, yokk na yaatuwaay bi yokkul na guddaay bi ndax guddaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 16 mètres 50 yaatuwaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 8 mètres 50 kon xam nga tollul woon noonu euh, hauteuru dal bi it daf ko gën a yokkaat ba mu gën a siggi ndax boo xoolee boo duggee ci biir bërëb bi di nga xam ni euh, liggéey na fi liggéey bu am solo sëñ Sidi Mokhtar ci mbaaxam ci oyofam ak bëgg gi bëgg sëñ Cheikh ak yërëm gi ko yërëmoon mu taxoon sax moom moo taxoon sax daf ko waxoon sax ne ko danga koy peintural kii ko xawoon koo kii rek tuuti waaye ndeysaan sëñ Cheikh ak bëggam ak laabir ak xër gi xër ci sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa nañ koo war nañ koo mën a defal loo xam ne ku fi dugg da xam ne lii sëñ Tuubaa yelloo na lu ëpp lii waaw bi mu ko ko waxee sëñ bi sëñ bi bëgg ci lool ndeysaan ñaanal ko ko suñ borom dogal it sëñ bi boole ma ak moom ma ànd ak moom liggéey bi suñ borom dogal ñu liggéey ko ba liggéey bi mucc ayib ba mel nii keroog bi nga xamante si nii eh, dem na bay jébbal sëñ bi liggéey bi sëñ Sidi Mokhtar bi mu duggee fii ci biir salle bi dafa mujjoon yéemu sax ci suñu borom ndax bi mu xoolaatee liggéey bi ni mu meloon ak ni mu ko bàyyee woon ak bi mu fi duggaatee ak ni mu melaat liggéey bi daf ko yéem ba keroog bi mu duggee ci biir bi mu toogee rek la mu njëkk def mooy def nii Fallou Galass la wol ma sëñ Cheikh Anta Mbacke keroog bi mu njëkkee toog la mu njëkk def mooy dafa téen ci kaw xool xam ne dal bi kat yokkaat nañ ko keroog ndeysaan mi ngi naan a ah, man de sëñ Cheikh Anta mii day wax dëgg yàlla man yéem na ma yéem na ma lool de wax dëgg yàlla yéem na ma lool daal ne sëñ Fallou wol ma sëñ Cheikh Anta sëñ daal di ci la ñu wooyee sëñ Cheikh ko ah sëñ bi na ci liggéey bi lool te keroog bi mu ñëwaatee ci sëñ bi sax sëñ bi da gën a da koo gën a feddilewaat loolu gën koo waxaat ne ko liggéey bi da wax dëgg yàlla am gi mu am rek ak ni ni mu mel nii rek sama xol da cee sedd waa sëñ Fallou yaakaar naa ni eh, boo xoolee bërëb bi ni mu mel nii daan nga fi dugg bu njëkk ba boo xoolee ni mu mel nii da xam ne wuute naa ak bu njëkk bi waaw yaakaar naa ni xam naa nag danga boo duggee ci biir da nga xam liggéey bi ni ni mu mel yëpp ndax boo xoolee sëñ bi sax wutal nañ ko fa wutal nañ ko fa néeg boo xam si néegu boppam la ndax jamono yooyu boo xoolee daanaka aw waajtaay la amoon rek ak néeg su néeg su tuuti waaye ci biir liggéey bi ci xalaatu sëñ Cheikh Euh, defaat na fa beneen bërëb boo xam ne si ne def na fa néeg bu yaatu boo xam si ne sëñ bi dina fa dina fa mën a nekk boo xam ne si ne wuute ak saal bi boo xam ne wuute na ak saal bi ndax booba rek jamono yooyu boo xoolee saal bi rek moo fi nekkoon ci saal saal bu saal boobu rek moo fi nekkoon ci jamonoy sëñ Sidi Moxtaar sax ci saal bi sax ci la daan toog waaye nag ci biir liggéey bi sëñ bi liggéeyaat na fi beneen li beneen néeg boo xam ne amaana beneen néeg buñ dolliwaat ci biir gën koo yaatalaat ba nga xam ne kilifa gi bu ñëwee dina mën a dugg foofu ci néeg bi man fee def li muy def waaw euh, boo xoolee garage bii nga xamante si ni garage bii nekku fi woon ndax sëñ bi bu mu saan dugg si fii ci biir danaan dugg rek bu mu saan ñëw fii bunt bii ma jàkkaar lool ci la daan jaar booba waaye talibe sëñ Tuubaa yi bëgg giñ bëggoon bëggoon bëgg giñ bëggoon mboolem ki fi nekk ki fi nekk sëñ Tuubaa nga xam ne ndeysaan bu sëñ Sidi Moxtaar mu saan ñëw euh, taalibe yi bu ñu saan bu ñu ne sëñ baa ngi ñëw rek ñoom ñëpp dañ daan génn bâtiment bi ba pare bàyyi ba sëñ bi jàll ba pare ñoom ñëpp ñu door a dugaat ñu door a duggaat ci biir waaye nag ci biir loolu bi ñu yeesalaatee bi ñu yeesata yeesalaatee liggéey bi suñ borom ci xalaatu sëñ Cheikh mu nekkoon sëñ bi war na sa ko ko fee mën a liggéeyal benn garage boo xamante si nii otoom dina dugg ba ci biir te dina mën a wàcc jaar ci buntu boppam dugg ba ci biir salle bi te du jot ak mbooloo mi dara. bâtiment bi boo xoolee ñaari salle ñaari salle la ndax euh, am na salle bu mag mooy saal bi ñu nekk nii ak beneen salle bu ndaw waaw ndax fii ñu toog nii mooy fi lay daari di toog. ndax sëñ bi bu ñëwee fii ñu taxaw nii fii lay toog jàkkaarloog mbooloom mbooloom sëñ Tuubaa mi muy daayira yi waaw bu dee ci biir nag euh, foofa dañ ko faa def ngir bu fa nekkee kilifa yi ak yenn délégation yi ak yenn kilifa yi bu ñu ñëwee mu mën a génn ci néegu boppam mën a woo kilifa yi foofa mën faa toog ak ñoom ngir waxtaan ak ñoom waaw loolu ñaari saal la boo xoolee am na benn saal bu ndaw bu ne ci biir am na benn euh, saal bu mag bi amaan na beneen néeg néeg néeg boo xam ne néegu boppam la. événement yu bari yuy xew ci yoonu Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba siiru di xalif général des Mourides fii la koy dundalee ci bâtiment bi. ba ci màggal Touba gi. ak yenn ci ziyaaru daayira yi ak délégation yi. gis nga yu bari xew-xew yu bari yoo xamante ne mi ngi xew ci biir dëkk bi yoo xamante ne day ñëw di ko dundal fii ci ci di ko dundal fii ci kër gi. ndax mboolem màggal yi fi jaar yëpp muy kasu rajab daaru ko doos ak lu mu a doon tey day day ñëw fii dunduloo ko ak isbu taraxiya euh, ñu bokk fi nekk fii ci bi nga xam ne diiran guddi yëpp dafi daal di nekk fii ci saal màggal ak ren gi fi la koy dundale incha allah ñett fan yi màggal gi yëpp fi la koy fi la koy def kalaami wa niyaati wa fiili tawajjah ila man kafaani su awa turam أباني fii ci biir kër mag moom am na bërëb buñ naan pale jiili mbay muy palais boo xam ne El jiili Djily Mbaye moo ko liggéeyoon ci ndigalul Serigne Abdou Lahad Mbacké mu waxoon El Hadji mbay Mbaye ne ko gannaaw da nga am pale dama bëggoon nga defaral ma plan boo xam ne day méngoog palais boo xam ne njiitu réew mu fi ñëw wala kilifa bu jóge bitim réew te darajaam mate ko su fi ñëwee ñu dalal ko fa allah jili jël engagement ne ko ne ko waxuma la defar plan bi waaye bâtiment bi maa koy tabax muy pale bële. pale bi mi ngi féetee ci bët gànnaaru kër gi ci espace bu yaatu ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib président yi ak gan yi nga xam ni seen daraja àgg na ci bu ñu fi ñëwee ci fii ci pale bi lañ leen di dalal. mu doon bâtiment boo xam ne tamit. 83 lañ ko fi defoon ci jamono yi Serigne Abdoul Ahad euh, El Hadj Jili Mbaye rek lañ waxoon ne moo ko tabax waaw 83 muy bâtiment boo xam ne mbooleem jiite réew yi képp ko fi jëm si tuubaa rek sëriñ bi foofu la def muy sa wàccuwaay boo xam ne fi lañ lay dal ba sa waxtu dellu jot nga dellu mu doon bâtiment boo xam ne tamit méngoon na ak wàccuwaayu njiitu réew ndax lépp loo xam ne euh, lu muy aajo wala am na ci biir bâtiment bi euh, muy chambre ak salon ak euh, dressing ak salle de bain am na salle à am na cuisine am na tamit yeneen chambre yoo xam ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak moom euh, mën nañ fa dallu am na tamit ñaari salle yoo xam ne tamit am na ci biir muy benn grande salle boo xam ne foofu mooy euh, salle de salle d'attente lañ koy wax beneen salle boo xam ne tamit daanaka li ñu naan salon gouverneur lañ koy wax loolu lépp ci biir bâtiment bi la nekk mu doon bâtiment yaatu boo xam ne tamit am na su sol am na su souterrain boo xam ne tamit maanaam ci suuf la nekk xam ne am na ñaari néeg am na ay magasin yoo xam ne tamit mboolem bagage yoo xam ne jëmoon na ci wàllu màggal gi li ci ëpp foofu lañ ko daan denc waaw mu doon espace bu yaatu boo xam ne tamit ni bâtiment bi toll rek cour euh, bi tamit dañ ko defal fii genre euh, bassin boo xam ne jet d'eau la dañ koy aménager comme ça muy génne ndox mi maanaam di <coughs> defal ko ay décor yoo xam ne daal maanaam euh, taaru lool def ci ay lampes yoo xam ne ay jeux de lumière lay doon mu nekk côté gauche bi ak euh, côté droite bi. aménagé nañ ko donc ay fleurs yoo xam ne chaque année dañ koy yeesalaat di ko même biir bâtiment bi tamit at mu jot suñ demee ci comme waajtaayu màggal dañ koy yeesalaat ci anam yëpp <clears throat> maanaam ci changer meuble yi fi nekkoon changer climatiseurs yi changer lépp loo xam ne rek euh, mi ci biir ci loo xam ne daanaka euh, danañ ko yeesal ngir mu méngóog. wàcc wàccuwaayu gan gi nga xam ne daanaka moom la fi sëriñ bi di teeru danañ changé salon yi danañ changé danañ changé lal yi danañ changé clim yi waaw danañ yokk décor bi tamit ba nga xam ne daanaka lépp loo xam ne tamit luy taara la danañ ko ci dolli yokk ko ci waaw danañ ko pentiiraat biir ak biti fu ci aajo karalewaat tamit dañ koy dindi karalewaat ko mu doon karo yoo xam ne tamit dana méngoog mm, <coughs> wàccaay wi daal wax dëgg yàlla ci lañ nekk nii daanaka ci sànce lañ nekk nii ngeen ñii peinture ñi ngi peinture ñii karole ñoom ñoom ñi ngi karole ba lépp loo xam ne daal fi mu nekk nii daanaka luy taaral bâtiment bi la luy yokk ab taar fi mu nekk nii moom daanaka ñëpp a ngi ci biir ci liggéey bi moom président moom balaa ñëw day fekk lépp lu ci war a dem moom dana fekk moom ñu noppi ci ba xam ne daanaka moom euh, day ñëw rek daanañ ko dugg ndax sëñ bi moom euh, du xaar kenn ci leen moom balaa ñëw lépp loo xam ne tey méngoo wàcc waaye boo xam ne daanaka luy taaral la moom danañ ko fi defal ba nga xam ne daanaka moom su ñëwee mën naa ne day dugg rek toog sant Cheikh Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te wér ndax loolu la ñu waroon a njëkkee waaw di ñaanal sunu jëmm ju baax ji nga xam ne tamit moom la sëriñ bi dénkoon kër gi nga xam ne daanaka suñu dikk fii ci biir kër gi <coughs> ci moom la sabab si jaar mi sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Sayid dafa ñaanal suñu borom dolli ay leeram ndax yar nañu ci toppatoo kër gi ba def nañ ko suñu yitte def nañ ko suñu bëgg-bëgg ba lépp loo xam ne tey fi nekk nii yitte laaj na ko rek fas nañ ko yéenee jox kër gi kaas bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci kër sëriñ tubaa gi te nekkee ci digg kër gi sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moom moo ko fi liggéeyoon mu daan fi dalal ay gan am na it ay cérémonie officielle màggal Touba yu bari yoo xam ne ci kaas bi la ko sëriñ Abdou Lahad Mbàkke amalee Euh, am na itam euh, case bu fi nekk boo xam ne sëñ Abdoulaye moo ko fi defoon case boobu bi ko sëñ Abdoulaye dafit dafa waxoon ne quatre-vingt-dix millions lay lay jar mooy case bi ci ñu jàkkaar lool moom itam euh, sëñ Abdoulaye moo ko fi defoon muy case boo xam ne fi la daan defi cérémonie màggal bu mujj gi màggalu 18 safar gi fi la daan kilifa yi bu masaan ñëw it ci kaas boobu lay nekk moom sëñ Abdou Lahad euh, ba ci jamono yi sëñ saaliwu ba ci jamonoy sëñ Abdou Khadir euh, kon kaas bi mooy kaas bi ngeen di gis euh, kon noonu la kër gi noonu la kër gi tëddee. mboolem bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi ba ñu noppee ci jamono yeesalaat gi nga xam ne moom lañ njëkk a def ci kër Serigne Touba gi. te yeesal kër gi yëpp Serigne Saliou Mbacke mu ngi ko santoon Serigne Amdi Khady Fall. Baye Fall ndogu yi nga xam ne moom la ñu indi xalifa général des mourides yi ci ëpp fii lañ koy indi euh, ci jamonoy Saliou sëñ Saliou itam kër gi santoon na sëñ Amdi Khady ngir mu yeesal ko lépp euh, ba yeesal biñ ko njëkk a yeesal gannaaw bu ko sëñ euh, defaree ba noppi sant ko jëwriñ jooju ba kenn ku nekk def li nga ci war a def ba noppi yeesal bi ñu ko njëkk yeesal ci jamono sëñ Saliou sëñ Amdi Khady Fall lañ ko santoon moom rek mu yeesal kër gi yëpp mboolem bâtiment yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi benn bu ci nekk am na ci loxo yuñ ko teg ñu yor ko di ko saytu rawatina entretien bi. waaye kër gi yëpp ñu ngi ko dénk Serigne Bassirou Niane mii muy bâtiment yi fi nekk bu ci ne am na ñu ngi ko teg ci seen loxo ñooñu itam ñoo yore responsabilité bâtiment ba la jëm ca wàllu setal ga nag dafa am ay daayira yoo xam ne. Euh, ñoo fi nekk daayira yoo xam ne daayira yu setal lañ euh, mooy bu dee altine am na daayira bu fi ñëw bu dee euh, talaata am na ñoo xam ne sëñ maam Thierno mi nga xam ne moom sëñ sëñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moo yore wàllu entretien kër yi sëñ Touba yi ak sëñ bi dénk ko itam liggéeyu université bi jël na benn société boo xam ne euh, wàllu nettoyage la ñuy def lu jëm ci wàllu talaataak ñoom bis yëpp dinañ fi di ñëw waaye téewut daayira yi ma wax muy alterné ak alxemes ak ajjuma ak dibéer bu ci ne am na daayira yoo xam ne dañuy ñëw fii di ko setal kër Serigne Touba gi ñu naan résidence Khadim Rasoul ci kilifteefu xalif général des Mourides lay nekk ni nga xam ne nag noonu la ko waajuram ya ak magam yu baax ya daan defee cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides dundalaat na bu baax a baax kër mag moom. waaw maanaam sëñ bi kër Serigne gi ci xol bi la nekk waaw kër Serigne ci xolam la nekk ndax fi mu toll nii bu dee jug bu dee jugee këram sax di ñëw sax daf naan leen kaay leen dem ci bërëbu bërëbu liggéeyukaay bi kaay ñu dem kaay ñu dem ci bërëbu liggéeyukaay bi kon kër gi ci xol bi la ko def moom da koo da koo da koo da koo bëgg lool te tey tamit nag da koo da da koy dundal waaw dafa dundalaat dafa dundalaat kër gi ba pare dundalaat penc bi waaw sëñ bi waxuma dara sax waaye bu nekkee ci biir kër gi rek ñi nga xam ne dañoo ne ci biti sax di yëngu di yëngu leneen loo xam xamante si nii sax day jëm ci doomu aadama ñoom dañ koy yëg. mboolem événement yu mag yi nga xam ne daal yoon wi da koy am Cheikh Mamadou Mountakha fii la koy dundalee eh, ci kër gi. kon nag ñu ngi gën a sant Serigne Touba baax di sant Cheikh Abdou laxaat Mbacké mi nga xam ne moo nu fàggul lii ñun murid yi di ñaanal nag Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi Serigne Touba. mu yàgg fi loolu te wér te moom doxiinu mag ñi rek lay roy sëñ Muntaxa doxiinu mag ña rek moo yitteem amul benn yitte bu dul liggéeyal sëñ Tuubaa amul benn yitte bu dul dëgëral pas-pas yi murid yi ci sëriñ bi ndax xam ne loolu mooy koom ëdd nag ak moom alaxira kon nag ñu ngi sant sëriñ Touba bu baax di sant Cheikh Mamadou Mountakha. sëriñ Touba nag bëri na kër lool fii ci Touba ci biir réew mi ak ca bitim réew waaye bii ñu naan résidence Xaadim Rasul moo ci gën a ràññeeku. lépp nag di gis-gis bu sori boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Xaadimu Rasuul nekkoon troisième xalif général des Mourides amoon na ko ndax kër gi bëri na lu muy jariñ yoonu Mouride. alimtu شهدت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتم من